محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحق بشيرا ونذيرا وأوجب على العالمين اتباع سنته في أصول الدين وفروعه ونهاهم عن الابتداع في دينه وحذرهم تحذيرا أحمده على ما أولى من النعم وأشكره شكرا كثيرا وأشهد أن الله الذي لا إله إلا هو شهادة عبد يرجو رحمته ويخاف عذابه واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد فيقول افقر العباد الى رحمه ربه واحوجهم الى زياده فضله محمد المختار شريف امام الصرصاره بعد ما يناسب من التحيه والاحترام لجميع الحاضرين الى مغال صرصاره الخامس عشر أود أن أزف أحر التهاني إلى الخليفة العام للطريقة المريدية الشيخ منتقى بشير بك أمد الله في عمره على أحسن حال آمين آمين آمين ولا يفوتني أن و... <coughs> أن و... ولا يفوتني bokk sa taalibe yi nañu dimbali ak déglu kii mooy ilimaanu fii nu ñëw tey di Sarsara Serigne Sidi Makhtar tànn ko dëkk ñu teg xeer wi muy ilimaan ji kon na ko ñëpp déglu te moom mii nii se ku tedd ki muy sunu maam ju baax ji fi doon liggéey sunu yaakaar teeg ëllëg ja muy xaadim rasool bi mu nekkee fii ba ku tedd ka jox ko werdi woowu maamam sëñ Assane moom la jëkk jox werdi bi moom mii mooy ab sëtam di imaam dëkk bi dañ ko dégg ولا يفوتني أن أهنئ جميع الوفود وأخص بالذكر وفد الشيخ سيدي مرتضى أنبكة الممثل لطريقة المريدية في موريتانيا المؤسس لمغال صرصارة والساعي في ميناء مسجدها وأذكر مستشاره الأول الشيخ بكاه وجزاه الله خيرا وأرجو من الراغبين في الخير أن يعيننا على تكملة تكملته فجزاهم الله خيرا كما لا يفوتني أن أهنئ سائر الجماعات ومنسقيهم وأخص بالذكر بشير همار وما من بك الملقب مام عيسى وأشكرهم على ما بذلوه دائما في مقال صرصارة وجزاهم الله خيرا وسوف أنتقل إلى الولفية وقبل أن أنتقل إليها أقول لكم أن الصرصارة محل محل إقامة الشيخ أحمد بمبا لها شأن عظيم لأنها المكان الذي أخذ فيه الورد المأخوذ من الله بواسطة نبيه صلى الله عليه وسلم وأما ما يخص بعلاقة الشيخ أحمد دبنبة مع الشناقطة لا يسع المكان لسردها ويكفيهم أنه قال فيهم أحب البياضين وأرضهم أرض الصالحين وهو يكفيه أن جميع علماء الموريتانيين وصلحائهم اتفقوا على صلاحه kun léegi maa ngi wax ak wolof léegi maa ngi leen di nuyu yéen yëpp ku nekk ak turam ak suntam di leen ndokkal bu baax ma di leen wax fii Sarsara fii la wax Cheikh Ahmed du moom ba wax hamdi wa shukri liman kulli bihi saara lahu ridan duna suxtin inda Sarsara lahu thanaa'i wa ridwani bila saxatin mutqaadali min bani daymaana ansaara لله كلي لدى آبار مكرمة منها ارتحلنا وفيها جم من زارا إن الذين إلى صرصار قد قصدوا زيارتي فارقوا الدارين أو زارا نيان بوبو منجي سخ بألاخر إن شاء الله الشيخ أحمد دبنبا أمو المرم cheikh ahmed dubam ba amul morom te ku koy tudd tuddul Ibra Faal mooy lambu yoon bi daf ne lu jaaduwul lii fii bu soobu yàlla bëgg naa yàlla mu wan ma fii deuxième Touba incha allah ñu def fii ayu fu ñu fu ñu jàngale alquran incha fii daañu sax fii fii daa ngay fi gis ayu xew-xewal yu bëri parce que Cheikh Ahmadou Bamba bokkul ak wali yuy des parce que Cheikh Ahmadou Bamba affaire am dey gën a feeñ ñeneen ñi seen karaama day ànd ak ñoom leen di wax ko xam ne maay naka yàlla tawfiq mu taxaw fii na sunt yàlla bu baax ku taq ci yoonu Cheikh Ahmadou Bamba na sunt yàlla bu baax te du ngeen ko xam bala alaxira ba alaxira daa ngeen xam lan mooy Cheikh Ahmadou Bamba ñu naara yi xam nañ ko bu baax ñu xam ne Cheikh Ahmadou Bamba amul morom lu koy yàlla may mayu ko kan ci jamanam wasalaamualeykum wa rahmatullah